Adama Gaye sa dënnu ndey kattal sa ndey un milliard de fois yow bañ bi nga bañ Haalpulaar yi loolu mooy katt sa ndey chaque jour de doo ci mën dara ñun suñu yoon nekkul nga nekk sëtu diw wala sëtu ma demba wala ma sàmba ñoo la gën a nekk noble un milliard de fois comprendre nga ñoo la gën a nekk sëtu diw un milliard de fois te duñ ko wax duñ yow doo cottu ndeyam lan moo tax nga bañ xaar pulaar yi c'était un problème avec Macky mais réglé la avec Macky Sall mais pourquoi chaque jour sa publication yëpp da ngay saaga xaar pulaar yi quoi comprendre yow ki ngay mbubboo ni mooy sa maam xaar pulaar la te pourtant dafa boole xeet yopp jur dafa boole xeet yëpp ëmb parce que tey tarixa bi nga xamante ne moom moo ko créé xeet yëpp ci nekk xalpulaar murit am na joolaa murit am na séeréer murit am na mouridisme xeet ya si nag yow ngay sulaar bu toj sa cottu ndey man Ousmane Ba maa ko wax maa ngi fii nii Canada ñëwal porter plainte te à des amis avocats ici dites-leur de porter plainte xam nañ fan la dëkk xam nañ sama adresse doo cottu ndeyam Maram Kairé Moi, je le connais depuis très longtemps. Mais moi, je le connaissais en tant qu'informaticien. Je ne sais pas entre-temps s'il est devenu astronaute ou, ou, ou, ou whatever, not. Lolo, problème, il faut avancer. Maintenant, il y a un problème. benn bi moom mooy bi muy xool lën bi weer bi pour ñu korite dafa ne weer bi kenn mënu koo gis jeudi ok et il avait raison parce que sky bi c'est-à-dire euh, euh, nuage ak ak ak nu mu demee woon jeudi mënuñu ko woon gis quoi mais mu ne que samedi mooy nekk korite loolu waru koo wax parce que xamul ban jour mooy nekk korte parce que bu ñu mënul gis weer bi jeudi peut-être mën nañ ko gis vendredi quoi comprendre nga wala mën nañ ko sax gis su jeudi guddi wala buñ ko gisul jeudi Sénégal mun nañ ko gis jeudi feneen ko ci beneen dëkk parce que du Sénégal rek lañ ko mën a gisee weer dina feeñ Mali te du feeñ Sénégal weer dina feeñ France te du feeñ Allemagne te comprendre te ñaari dëkk ya takkaloo est-ce que donc wax boobu mu wax moi je le politique laa ci gis quoi parce que ñun ci suñu culture ci suñu aada ci suñu gëm-gëm dañoo wax ni tabaski wala korite Ah, ah, vendredi baaxul ci nguur quoi loolu ay wax neen la quoi ay gëm-gëm la yoo xamante ne nekkul quoi c'est pas scientifique amul fenn ñu ko teg comprendre ay waxu kasara la quoi comprendre donc wax boobu mu wax c'est comme que da doon éviter état bi pour ñu euh, tabaski pour ñu te vendredi ok euh, tey boo xoolee weer bi feeñ weer bi feeñ na jeudi Sénégal ci yeneen lieu yoo xamante ne moom maram kaare naa ko fa woon donc vendredi moom moo nekkoon korite comprendre mais boo xoolee kër tarixa yëpp samedi lañ julli Sénégal ñëpp vendredi lañ julli kër tarixa yëpp julli samedi c'est normal parce que dañ leen a dicté pour ñu julli samedi parce que ñoom seen ngooñ ci gouvernement bi lay jógee kër diina yëpp nag muy man fi ma bokk ak yow doomeram bi Adama Gaye fi nga bokk ak ñeneen kër diina yëpp Macky moo leen di dundal comprendre nga bokk nañ ci ñu yàq Sénégal gis nga fu mu toll ne moo tax nit ñi dañ leen commencé sa weddi kenn joxatu leen benn respect xoolal doomu ram boobu noonu euh, imaamu grande mosquée bu bu grand Dakar li mu wax bu grand grande bu Dakar li mu wax waxu dëmm la wax kooku ñëpp xam nañ ne alal la gëm moto ñu imaam duñu ay imaam comprendre kenn gëmatu leen kenn joxatu leen respect parce que alal ngeen jiital gëmatu leen yàlla. waxatu leen li la wax ci ci ci alxuraan seen pose ngeen fi nekk mais yow Adama Gaye moom il faut nga bàyyi li ngay wax ci xaal pulaar sinon léegi nga toj sa cottu nday bi laay li lay liy katt sa ndey moo ngi si sa wetu tànk yow Macky bi yow bi la dig di jël si man maa la njëkk a bind message les captures d'écran mu ngi fii doo ko man maa la bind message ne la ils vont boo mënee génn sa appartement building immeuble Kébé génnal nga dem sa yoon loolu da nga ko sañ a weddi je l'ai publié quatre décrets envoyé naa la ko nga dëgër bopp ñu ñëw jël si la ñaf sa nday ci kaso bi comprendre nga des fois li ngay xeex se noble des fois li ngay xeex c'est très noble mais da nga cee boole benn racisme boo xamante ni dafa jéggi dawa te yow Haalpulaar yi ñoo katt sa ndey tax nga nekk sénégalais parce que ñu ñoo leen andi ndey ci boobu dëkk dëgg la sa lëfal ndey man Ousmane Ba maa ko wax fais tout ce que tu fais jóg boo jógee di fëgg sa dana naan man ne man ne man naa man naa te doo cottu yow da nga fay ëpp nit ñi xam-xam yow Sénégal lan nga def Sénégal qu'est-ce que tu représentes dans ce pays fuck you